mu doon formation boo xam ne bii euh, responsable moral sëñ Youssou Diop moom moo santaane ñu def ko euh, mu jëm ci mbooleem responsable yi nga xam ne bi ñooy doxal secteur yi di finance ci biir daara ji ak secteur yi di administration ci biir daara ji nga xam ne ñoom ci seen liggéey de tous les jours ñu ngi jëfandikoo ci ay outils informatiques sur l'informatique de gestion particulièrement et où un peu partout que ça soit pour ISBU que ça soit pour les entreprises en général sur l'informatique de gestion il y a un outil qui est très très très utilisé euh, c'est l'outil euh, c'est le pack Office en général précisément l'outil Excel lu l'outil Word alors aujourd'hui euh, ci recommandation kon responsable moral sëñ Youssou Diop la ñu dajale woon en conformité avec euh, justement des décisions yi mu jëloon ci suñu euh, conseil élargie bi weesu ne l'ensemble donc des responsables financiers et administratifs nañu dans le cadre de la formation continue, développer des modules pour renforcer la capacité sur la maîtrise des outils Excel et des outils Word.